alors déjà je pense qu'il faut doter. lorsqu'on sait que Gambie. waaw ah. ba mu ngi siégé. parce que parce que Sénégal euh, le fait que ñu am ministère de la justice am un parquet qui dépend du ministère de la justice dafay biaiser tout le jeu pourquoi une raison simple ce sont des ministres de la justice fii ñoo ne il y a trop de pression sur les juges il y a de très bons magistrats mais on a une justice bancale elle n'a pas de moyens. elle n'a pas de ressources, elle est surchargée, elle considère certains citoyens comme ordinaires et d'autres non ordinaires. Quand on n'a pas de moyens, on ne peut pas laisser, laisser en justice. Et malheureusement, la justice est utilisée pour liquider des gens, on le voit. Il y a trop de prétextes. dañoo war a séparer d'ailleurs maa ngi naan est-ce qu'il ne faudrait pas dans les réformes séparer carrément la tutelle du ministère de la Justice que le ministère de la Justice s'occupe simplement de donner la vision en matière d'infrastructure et de droit mais qu'on laisse les magistrats libres et autonomes c'est Abdoulaye qui disait que magistrats yi bàyyi nañ leen mais ñoom ñoom bëgg a garder chaîne bi mais le parquet le procureur yow su leeroon tey mu ne li nga wax fii tey jii nga wax bi génn émission bi rek mu xaar la ci suuf nga dem mu ne li nga wax wax koon wax tey la détention préventive mandat de dépôt waaw parce que offense à chef de l'État wax nga lu wax nga lii wax nga li parce que on a donné pour la détention préventive loolu dañ ko war a dañ ko war a lijjanti la détention provisoire dañ ko war a lijjanti on ne peut pas avoir un ministre la justice qui dit ça ce n'est pas une question de droit c'est une question politique ba mu ko waxee am na dëkk yu mu ko doon waxee du fanaan ci ministère boobu Sénégal nag malheureusement euh, y a trop d'abus y a trop d'insuffisance y a trop de lacunes ba tax nag les deux ou trois dossiers yi ñu gën a médiatiser yàq na les 98 pour cent des super dossiers parce qu'on a d'excellents fonctionnaires d'excellents magistrats yu gëm yàlla yu ragal yàlla je les félicite je les encourage waaye nag benn pomme de terre bu nëpp malheureusement dafa yàq saako ba